مني خم خم نتلا علم اليقين أك علم اليقين أك حق اليقين علم اليقين ما يلو خمني نيكو نتلي دنيو باري تتغلو بانغ خمني يو خمان أبنان دي أمريك مو أما أملا ملن ماكا بفكي مشوفا دمتم ننكو يدقي بنا جدو بنا جمبالي xam nga ne màkk lu ama am la mu di la misaale géej fekkee mës laa dem ndakaaru ba gis géej itam boo dee magum jëm yàgg dégg géej day mujj nga xam ne géej moom gisoo ko sax waaye lu am la kon ñu ngi xibaar di ko xakk waxaat bañ xam ne moom lu am la doonte gisuñu ko loolu mooy xilmul yaqiin xaqul yaqin nag mooy nga dem ba teg sa bët mel ne bu géej gi nga waaxu ba taxaw ca tefas ga jàkkaarloo géej gi xam ne géej a ngi nii loolu mooy aynul yaqin xaqul yaqin nag moo ci gën a dëgër moo ci gën a wóor mooy bu doon géej gi nga dugg ba ca biir ndox mi féete la fu ne kon loolu mooy xaqul yaqin mooy xam-xam ba nga xam ne moo ci gën